أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذها بك وسريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همسات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم سلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما شبه ناشر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدر الأسيم صلاة وسلام وبركة تقود بها لسيق القديم القائل شلالي إلى جنتي باق توسعت وكلي ومالي سان حام مسسس ما اخترت ورديت له في الحال والمال بكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إنا بن لن نيواتي زيارة لن أجفل لن بباح نيجي ديكاتا جين باتايتي téere bii di garabu Tuuba xaajum ñetteel bi te sëriñ alxaaji Mbàkke xaadimul xadiim dajale ko lépp ngir liggéeyal boroom Tuuba sëriñ Tuuba xaadala xulaax maxtaar la ko nee na nekk ci dëkkam bii di taxawaalo dëkkam bi nag booba njaareem la ci jublu mu ne nekk ci dëkkam bii di taxawaalo te moom mu tax ñu na moo gën a màgg ci jëmm jum mën a doon jaamu yàlla ga gën a màgg ca moom ak fu mu ko mën a defee loolu mooy ndigal yëmut lu dul ndigal ndax bu la digalee ba keroog ngay noppi ci moom lañu lay àtt day mel ne moom mooy def wallaahu alam am na séeréer bu daan xëy si bis bu set ci kër sëñ Tuubaa xaadalahu laahu taalaa ca njëre benn bis mu agsi bëgg a yegg ci sëriñ bi ñu nar koo téye sëriñ Tuubaa lafu laahu taalaa ne bàyyi leen ko bàyyi leen ko ma yegg si bi mu agsee sëriñ bi ne ko lo doon wax mu ne ko dama deg ñu ne lu nit baax baax baax ak lu mu nekk nekk ab serigne su di fi yow da nga ne ko tuubal te man serigne buy tuubal ab sering, mom serigne buy tuubal serigne mënuma ko xam ku nekk serigne sa bay nekk serigne sa mam nekk serigne nga diko nga dik ñu naan la tuubal limuy tuub dal kon lu mu tuba tuba xaada rahmatullahi ne cell ba mu bi mu ne cell ba mu yàgg mu ne yaram wee dof waaye nit la yaram wee dof waaye nit la loolu la Seexul Xadiim wax bi mu faatoo ñu wax ko sëriñ bi mu ne bàyyi leen ko mu dem àjjanay gàcc bàyyi leen ko mu dem àjjanay gàcc xëy na àjjanay gàcc nag mooy àjjana joo xam ne jëfaloo ko lenn lu baax xañ na loolu mooy àjjana wallahu alam bi ñuy liggéey jumaay njeereem sëñ tubaa xaadalahu lamataloo daawoo sëriñ isa jenn radiyallahu taala anhu neko dama bëgg nga wax ma wa kër gi ko bëgg mu jitu ak ka cey top mu dem wo ku ñuy wax mbay gay ak mor ñang andi leen ci fu lama talo dindi ñaari turki jox leen ne leen sol leen ko ñu sol ko dikk di liggéey lii nag danañu jànge ci lu bari te mooy képp koy defloo dara waroo jékki-jékki rekk di def defloo ko loola te séraloo ab xolam ba mu sedd fi mu ne sëriñ bi xamoon na bu wér ne ay yéreem moo gënal taalibe yi lu ñu mën a am ci ñoom moo tax mu jox leen ba tey sëriñ Isaa radiyallahu taala anhu ndegam liggéey bi ci loxoom la tege lépp lu muy def lu ci jëm ci moom la koy jaare waaye du ko jaare feneen muy indi ay juyoo ba tey li mu ko wax ci jiital kenn teg ca kenn mënta ñàkk ci liggéey mënta ñàkk ci liggéey bu mën a doon ndax mooy tax du taxaw bu ñu seetloo itam danañu xam ne bu xasee ëpp ñaar dana bari lu muy waral yeneen wallahu ahlam ku ñuy wax farajaañ am ndar ndar la sëñ Tuubaa xaadalafu la mataloo da ko woo ba mu ñëw mu ne ko liggéey boobu ci pénc mi laa bëgg nga def ci sa wàll wér na sëriñ tubaa xaadalafu la matala mos naa wax guddi gàmm dee leen ko dajee fa jàkk ja di ko fa defee sëriñ tubaa xaadalafu la matala nee na ñetti bant yamu mu goroon ca gabon gàddu ñaar ña wommat benn ba dikk defar ko jublu ci jàkk nee na bi ma koy defar day kilifa googi mi ngi may séen bi ma noppee ndaw ñëw ne ma fii jàkk xewu fi wax keneen ne ko fabal bant yooyu wacc ko fabal bant yooyu wacc ko nii nee na ba mu ko defee daa dem fa muy tuure ndox sànni ko fa sëriñ bi nee bi loolu amee naqar wa ma am nag taxoon mu doon bëgg waral mbir waaye rasulillahi salallahu taala alayhi wa sallam sama xarit ba ne ma bàyyi ko la ko fayee fu leen jege te duñ ko mën a saafara bàyyi la ko fayee fu leen jege te duñ ko mën duñ ko mën a saafara maanaam duñ ci man dara ba tey nee na bant nga xam ne moom la geroon ca gabong mooy bant yooyu muy wax nee na mooy yi saaxa li xeyri llahu fi ma yën ba maa saa xalbiya wa ala jën ba nee na mooy mbirum ñaari sooroor yi ba tey nee na du jàkka du juma ak pay la su ko defee nag kii danañu dégg ci waxam ne li mu dégg ci waxeenu sëriñ bi la wax waaye waxeen wi bu ñu ko booleek yenn waxtaan man koo xam bu wér waxoon naa itam ne sëñ Tuubaa xaadalaxul laxmataloo buy wax ñu bëri la fay fekk bu ñu demee itam ku nekk na nga mën a waxe rek ngay nettalee la nga takk itam moom ngay mën a wax loolu ñuy loolu nag li ciy firnde nag mooy nettali bi may bëgg indi incha allahu taala fi mu ne gàtt na lool waaye am na ci waxtaan wu mu nekk wu gudd képp ko waxtaani sëñ Tuubaa xaadalahu la mataloo itteel nag yu mel noonu war na koy xàmmee sëñ Alaaji dina nee na man nag danaa fexe danaa def lu ma man ci jiim ko dajale ak leeral yu mel noonu waaye duma bàyyi wenn waxtaan muy dem te fekk mu am tuuti ak wuute ak weneen wallahu aalam